est-ce qu'il des injonctions du khalife général des mourides dem ngeen fa mu yëkkati tàndarma ne boo leen demee ngeen ne ko mu dakkal grève de la faim bi lui il se dit taalibe mouride te mouride moom ndigal lañ ko xamee pourquoi du nangul xalif bi li mu ko ñaan ok maa ngi ci profité di jaajëfal sëñ Mountakha Bachir di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér mu yàgg fi moom Mbàkke Bàlla def na li ko war yëkkati na jox ñu ñu ni tamit yëkkati nañ yóbbu ci Ousmane. ba ñu demee ñu tere ko ñi fa demoon yéen ñëpp gis ngeen ko depuis barki démb la ñu dem mënuñu ko gis il a fallu que ñu jaar ci ay bunt yu ne wuti ay kayit wuti ay intervention pour mën a egsi ci moom malgré que jàppoon nañu ni lu jógee lu toll noonu lu jógee ci sëñ Mountakha Bachir te bañ fay jóge tubaa yëkkati nañu kàddu ne yóbbante nañu wax nañu nen ñu yombalal egg bi mais dañu ko jafeel waaye lépp rek ñun ñuy tenir dem ba egsi ci moom mais que agsi mu nekkul en possession en possession de ses moyens inconscient lan lañ ci lan lañ ci mën il est dans un état végétatif il est je peux pas dire végétatif je ne suis pas médecin te du ma mën a dugg ci détails mais en tout cas comme li ma la wax il est dafa inconscient quelqu'un d'inconscient est-ce que c'est quelqu'un qui peut dire oui ou non ñun am nañu yaakaar ni Ousmane Sonko nangu na ndax am nañu yaakaar ni Ousmane Sonko su nanguwul woon ay volonté parent wam proche am ak ñu koy faj du ñu bàyyi émissaires yooyu egsi ci moom parce que nag il a toujours ses avocats ki peut-être que par moment de réanimation arrivent à lui demander des choses wala les médecins à son chevet ñoom ñoo xam soo niveau médical fu mu toll mais ñun jàpp nañu ni Ousmane Sonko mësta bañal benn digal te lu toll noonu mënta jóge ci xalif général Ousmane ko di ko bañ ñun am nañu yaqin ni buñ ko fekkoon mu xippi ay bëtam fekk ko mu toog dana jël loolu dugal ko ci gémmiñam mais loolu lañ fa fekkul moo waral alerte bi ndax bu fekkoonte dañ ko fekk mu ne ci jàmm nekk ci tan kon duñ ci wax kon dañu koy jox euh, euh, yóbbante bi bàyyi ko mu jël ko doxal rompre son jeûne ba tane xëy nañu doog ciy waxaat mais ba mbir mi di ñëw moo ko fekk situation boo xam ni moo alarmant